صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسيما وجلات القصيدة أقدرته على سرور صلى الله عليه وسلم وماهية لكل ما مر عليه من المكاره الدنيا والآفات والأقدار آمين يا رب العالمين أوسعني ربي شكر النعم ولم يسر بالنافع ومنعم أوسعني ربي شكر النعم ولم يزل بنافع ومنعم نفعني بنعم لا تفنى من سوى أمري نفى ما تفنى مع تغربي لدى الأعداء مع الخمول عازمي من داري لم سكوري على الأوتار بلا تعاسد ولا سيطان سكرت بالعلم من غباري من خير ملاق ولا دواري أذكره بفيده والفيد في كل ذي جواب روض أذكره بملئه للجنة دار القرار والمنى والمنة يقود في العلال رباها بلا عذاب من ورام سباها ينين للرحمن والرحيم علي بي سفالي التلعيم وعلى ليم مع ليم والبشير عيبي وقاد للفتى وفتى خيبي شعلت بعد انتهاء سيري إلي بالماء دوام الخير يا ربي أوسعني شكر النعم يا خير نافع وخير منعم أوسعني ربي شكر النعم عند كون سرور المنتقى ساء ولا يرجع لي ما سا وقد ساء للمنتقى عادتي قطرى بلا نفد بإذن من أقاد لي أمنا وإن ساء حبي وحدني دواما لا يوجه لي غير الأحباء وحدني بردابا يقود للمنتقى بالله من منام يقول الله بالمختار منونا يا أبشر في الدارين آبا يقول للمنتقى بالله منونا ليست لا خياثا لمطوئنها وزن وسني على خير باقين نمر يتيم لو بأبديا من أنها من مالك لقليلا قد وسلني ما لا ينال بليغ المعنى أورا فعاد الحبيب الرسول الله إلي أمري قد غاد من مالي قاد أورا يدي وقلبي وروحي لا سمت بدني وقاد لله تسيرا وإبقاء يدي وقلبي وروحي لا شمل بدني وقاد لله تسيرا وإبقاء يم المصفى سفى للبقاء بردا ولا يوجهني ما سيسقى وجهي إلى الله بالمختار متجن وما طلبت به من مالك جار محمد لي يقود سولة دون أنم صلى علي التي لي قاد أوجار لله تبارك وتعالى ولرسوله علي سلامه أن لا أكتب بعد هذه الأمسية في بقية عام سعدنا بكرم عام بكسس الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يسلم على النبي الملتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحب وولاه وأمر الأملاك أيضا بسلام علي زاقدا بذلك ولا ثم إلينا وجعل كتابا تكرم الأنفس لتابا ومبلغا إلى المهد سالي أمر جميل الجلال مثالي يا مرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولاد إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل حدد معلومات ربنا العليم تعمل بي وابتلي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلمان عن التي تقديمه قدر لما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعال وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وصل يا رويم ولتسلم على نبيك السعير العلم سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل يا من يقود لمصلي المرة علي أسرا قد تنير برا ولي توسن بسارات القدر مساجا لغير ناوي القدر يا الله يا رحمن يا من بجميل النبي قد تميا سالي بتديم الدعاء أن على النبي في الباء سيدنا محمد والآل وسوابي في الآل والمال يا من يوسن لسي أزل المئة بجاهي يا من أما أن سيئا على نبي كان يمو بأسن سوءا ويقظ السعيد من وسن نعم سفي من عليه أتى سلمت وألفا تبوق فيتا وهو الذي أرسل ومن قلقه لألقي برحمة وسبقه وهو الذي لمن علي ألفا سلم في الجنان يرفع يلا وسلم صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسوبي في الآل والمال يا من بجائي قبلت قلمي وزنتني عن مرض وألم ولي بي وأبتغي قاداتي ما غاب عن أكابر السادات قلبي قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب قلبي قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن مسرمدا ولا سيدنا محمد يا من رأى لمن كتابك العزيز سلبا ليوليدك ترا قلبا وبيد الأولي دويت للخيور جميعا إنما مري والدور وآلي وسابي في الآل وفي المآلي يا مقيم الآلي وزال العرم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمعالي يا من جعلت صلاة النامية أني مزافة السلوك تاوية يا أمداه جعلت كجار كل مجاهد لديك سديار ولي جعلت جنر السوري هي سواد ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم النافع قد سميا سلسلة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وغدو لجبريل من اليوم بشارة تصبح اللوما وقتني جبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بزارات تدوم أبدا مني إلى الشعاب يا من بدا والتتي على بدن الكرام أني خير نقد المرام والتتي أني للبيا والرسل خيرا يديم شكرا وسلام والدر من الأولياء والعلماء للمؤمنين وكمن سلم وجه الكتاب كما أيسوكن واعبا وعبتليت فيكون وجه كتابتي ميعيش وكن يا واعبا وعبتليت فيكون يبدا سلم وتسلم كل عين على بيبك رايد سالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال سيدنا محمد والآل وسوى في الغال والمآل وجل كتابني من سلوم فوق صلاة قبلت وسوم وجل كتابتي من سلوم فوق صلاة قبلت وسوم واكتب بقدي مرتبة من العلوم الخبير والكبير والعليم وجنني بك وبالمصطفى عن كل ظالم وكل مدفع وتعالي في مثل مرسلين وبدني سي وقلبي أرسلين أقسم أني بعطب الزمن إلا إن قالت أتبتني زمن لك بلا سكاية مني ذكورا من وابتني يا سكور وصل يا رحمن والتسلمي على الذي به فقد تعلمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الآل والمآرب وسب لي قصدي ونومي وزول خيري جالبات اللوم وحركاتي يجعل وسكنات لك أعب من جميل سنات لخير آفة وخير قدر يعزل البرايا والقدى والقدر بخير آفة وخير قدر يعزل البرايا والقدى والقدر يا مصطفى يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من اداك سندا يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من اداك سندا أزكى صلاة بسلام لتجود من استقامة وتقليل الوجود في الآل والأسواب والأدبار وسادد المرام ارتبار يا زيني يا متبارى صلى الله صلى الله عليك من تعالى وعلى أزفك صلاة بسلام الله عدد لا تسرح لي دائما مدد في الآل وصحب وكف ما سر أن وجهتني إليك بالنصر يا سيدي يا منتهى يا سنودا صلى عليك من سألت هدى أنت صلاة لي تزوف كل ما المستعيت سرمد المسلمة أزكى صلاة لي تزوف كل ما المستعيت سرمد المسلمة مع سلام في جميع الآل وسابك الثرر والرآل يا ديني يا متبا يا من سرى سلم عليك غداك لسرعة أسكى صلاة تجود بصبر بأم جامرك من خير صبر مع سلام بجميع الآل وسبب من قد علوم آل يا سيدي يا خير مرسل إله أنت لله العالمين في الإله يا سيدي يا خير مرسل إله صلى وسلم عليك أبدا بالله وصحبه ومن تابدا أزكى صلاة من جل بسلام تجيبني توبا يا دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك ولا زاب ربك السميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسقي الوداع لا خير كل والد وما ولد سل عليك من تعالى أنا ولد مسلم مع القيار غبد كما لغير أزال بدر بخير ردني إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني لا خير مرسل لخير أمه صلى عليك وكواك القمة رب كريم رافع قد جلى وقدرك العظيم قد جلى مسلما عليك فوق عدة بلال وسابي وذات مدري عما لتديك قد سرق القمر صلى عليك مر بقلبك مر مسلما عليك بالكرام في الآل وصحب بالانترام وبك جملة ذنوبي قفرا وكلما علي أني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مرتبى صلى عليك من أداك واتبع مسلما عليك في الآل الكرام وزعبك القر وقعد المرام ولسواي النهر والسقاء كفوما يغرم الارتقاء وجادلي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالغراوة وجادلي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي قلبي يا بغيتي يا جنتي الكل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك من قد أنما بك لينا وأدام النعمة وكلما صدقت إليك قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار كل ما أبتار دنيا وبرا بك ذا سلام من الحساب ومن الملام وتيبسم السمان إكما أعب وكفاني سرمدا المالا أعب وبكني كان وذاق للأرب أتاثير بسر من وعرب ودمني لسواب المنام وقعد لي بلا إزاب المنام وأتى تنبيه عيوبي معه ولا دري كل كنوت جمال وجادري بكون سن اسم صفان وهي وللأمة عيش كذفان وكفى الله جملة الرسايا بي وزاقري بالمزايا فإنه جل على ساك قدير وبإجابة دعاء دار جدير خاتبت بسكر والسناء إذ بك أني قد نظر صفاء نائم يا من سؤال خيري إني دلال إذ كنت لي بكرم يا سجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالله وصحبه مساعد السلام وكن الدار وكن معي وكن ميزائقا فوق مرامي بكن قل بجائي آيات سافيا لك بما نجور دافيا أبني سلامة وبعافية وقسمة وجعل في سافيا وليا سلامة وعافية واجعل حياتي مرأة سافية الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla sunu borom sant boo xam ne am na fu mu xàmbalee ci may bi mu di dellu di làq ci moom di nga ñaan mu dox suñu diggante ak saytaane ba xaw di ñaan di ko joxe ci sunu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak mbooleem ñi nga xam ni àndoon nañ ak moom dox seen bakkan ak seen deret ngir kawel baatu yàlla sunu borom ak la leen ci fekkoon lépp enoot waaye muñ ko musul ne eh te yonent bi foofu mu jaarkat sallallahu alayhi wa sallam booleen ñu ko jiitu woon ci ay yonent alayhim salaatu wasalaam foofu lañ aw ku ci mas a taxaw ci aw xeetam woo leen ci wéetal yàlla sunu borom bàyyi la ñuy yàlla te du yàlla bàyyi ñenuy tudde yàlla te duñ yàlla bàyyi bakkan bàyyi bànneex bàyyi adduna jublu yàlla fàttali leen ëllëg mooy liy sax tey des ba fàww delloo si seen xelit ci ne leen adduna du kër boo xamante ni des fii sax waaye ku ne ci noonu daf fi bàyyi koo fekki boromam ëllëg yonent bu mas a taxaw wax loolu aw xeetam ñetti ëpp lañ ko cay tegal mooy lii nga wax du dëkk waaye nag mu di ko muñ ñii tër nañ yéen rendi ñii boole nañ ñeen ak i garab xar seen jëm ku def yaa ngir woote wéetal yàlla ak dellu ci yàlla ak kennal yàlla sunu borom ñii tuumaan nañ leen tëdd leen ñii génn nañ leen seeni dëkk ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam waaye musuñoo dañ di doyloo yàlla di wéetal yàlla di jublu yàlla seen gannaaw it ñuy dikk di yeesal ngir mañ awoon ak ña àndoon ak ñoom it di dajeeg nattu buur yi ba ni nga xamante ni kat egsi nañ ci sunu jàmbaar ja Mawlana Seyxul Xadiim ña ko jiitu boo seetee ci nattoo di ker kana ker kanaani loolu yaay yi yu def am na ci ñoo xamante ni sax dañ leen a faat boole leen ak bàyyima bi ñuy wax mbaam sànni leen ci ëpp sën boole leen taal ci nitu yàlla ñii dañ leen a di leen dóor téeméeri yar suba di leen dóor téeméeri yar ngoon te dañ koy boole koor ci bëccëg gi di ko boole taxaw guddi ba asamaan sa ci ngir yàlla ñu di ko mun kon nun nga xamante ni ñoo jóg di ay jullit di ay murit murit nag du caagéen ni kuy naana ci Seexul Xadim rek moo di murit waaye murit tijaan bu murit la xaadir bu murit la laayeen bu murit la képp koo xamante ni sa yitte mooy jow dox jëm ci yàlla te muy dëgg am murit nga ak foo mën a féete kon sunu jamono bii nu toll war na seet nun lan lanu yàlla jaral ku ci nekk war naa delluwaat ci boppam ndax nun ñëpp noo ngi ci sunu sabo noo ngi ci benn natt dalunu te sunu yitte dox jëm ci yàlla des lu bari kon loolu ñun ñëpp war bàyyi xel fu ñu toll ci daje yu mel nii saa su ma ko rajee nga xam ne murid bi ko sëriñ bi di jàngale mooy koo xam ne itam jëpp fu mu xëyee ak fu mu gonto mooy nu muy def ba daje ngërëmal boromam subhaanahu wa taala léegi nag ñun ñëpp ku xëy lii sa yitte jëpp nooy def ba bokk rek mooy suñu yitte lu ñuy dolli ci yàlla kenn yitte waaye lu ñuy dolli ci sunu adduna ak mu gën koo jekku loolu rek mooy sunu yitte moom loolu de mooy kenn ku mu doon ci nun seet lu koy dolli ci mu am ngërëmal yàlla nay seet ci lépp luy sab merum suñu borom muy daw loolu mooy jikko yu rafet mooy melo wu rafet mooy doxin wu rafet nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey te jàpp sa njàmbur tudd sa nekkut kon daje bii nga xamante ni yàlla mi nga xamante ni dara tëw ko moo ne fi bokk dajale nun ñii ñëpp nuy ay jullit bala ñuy teqali ko war nañoo dénkante dénkante boo xam ne nun ñi ñëpp kenn ko ci nekk dana la jariñ ci saw nekkin sa diggante ak sa borom dana la jariñ saw nekkin sa diggante ak sa borom baat bi tax ñu naan ab jullit mooy julli képp ku koy def dañoo wax ne da ngay déeyaale ak sa borom bi ngay déeyaale ak sunu borom it dafa mel ni contrat booy signé waaye tàmbalee googu ndax bi nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim baat yooyu ngay wax yépp dafa am taxawaay boo ci war a am boo jógee ci julli gi mooy boo jógee ci contrat bi ngay signé suñu borom mooy julli gi waaye bi nga génnee ci julli gi nag dafa am noo war a doxee ak noo war a waxee ak noo waxe noo war a melowoo ndax boo ne yàlla yow rekk lay jàmm wala yow rekk la ñuy jaamu seetal noo def ak bakkan seetal noo def ak bànneex seetal noo def ak adduna xoolal noo def ak nit ñi boo ne yàlla yow dong la ñuy dimbalikoo setal ba xam lu man di dal ci sa kaw ak lu man di doon kan nga cey dimbali ko ku dul yalla sobal yalla rek mo am ni mbul wir yalla rek mo am ni mbul sax serigne abdullah maulana cheikh abdul ahad mbake dafa wax ni sunu borom day buntu bi yermande bu ubi ben jam munu ko tit munu ko tit bu jaam yépp maase wun bëgg a tëj buntu bi yërmande suñu borom lott nañ ca waaye buntam boobu ne kàpp it bindeef yëpp buñu maase wun bëgg ko ubbi duñ taman dara mooy tax nañuy jàngalewaat tawhid bu baax a baax a baax a baax bu baax ci suñu nekkee ndax tawhid kat ku mu leer fi yow set fi yow dana la wóor ne kudut yàlla mënu laa lor kudut yàlla mënu laa yàlla rek moo mën a jariñe yàlla rek moo mën a lore doo ragal kenn ku yàlla doo bàyyi xel kenn ku yàlla ndax dana la wóor ni kat su bindee fi yëpp dajaloo bëgg laa lor su lu dolli dee dee te andut ak suñu borom duñu ko man bu bindee fi yëpp maase woon bëgg laa jariñ lu dol ni dee ko man kon doo tiit dara doo raf ci dara doo jàq ci dara ndax nun ñi ñëpp kat kenn ku ci nekk sunu borom bi mu lay amal tàmbalee la ci pepp ndox nga dem ba di aw suuf mu génn ci ay cër matal la ci si biir wayjuru jigéen ba indi la ci kaw suuf pattalu la laggalu la ba nga doon mu kàllafum jëmm ba bu ñu waxee nga dégg bu jëf jotee nga jóg mën a jëf na la wóor ne kenn dimbalu ci yàlla kenn fépp ci yàlla te ci coobareem doom mu la ko defee nag kon nag yàlla moom yi nag war nañ ci la delloo dëkkal yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale na ne bala ngaa sant yàlla na nga sant ki yàlla jaarale xéwal gi ci moom waaye ku ne xam na ne ndab bu amut defu ka diisu ca mën def balaa nga ne naam ne fa loolu la war a wax mooy tax sëriñ bi lool mënu jàngal ci tawhiid wax ni mooy xam-xam bi nga xamante ni buñ tegee nit ki ci kuusu bàmmeel war koo yor ci biir xam-xam bu mu fa yóbbaale bu du tawxiid du ko jariñ bu ëmboon xeeti xam-xam yépp te tawxiid bokk ci du ko jariñ waaye bu yóbbaalee tawxiid te benn xam-xam toppu ci dana mucc kon tawxiid boobu war nañ koy jàngale waat ci suñu biir bu baax te di ko setantalaat bu baax ba tax boo dee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla yow rekk laay jaamu boo xëyee sa yitte nay lu lay jegeel sa borom boo nekk yow rekk lay dimbali mbir mu man doon dimbali ko yàlla rekk moo ci mën dimbali annafu wa durru min arrahmani laysa min albidaani wa soodani njariñ ak lor ci yàlla rekk lay bàyyi jógewut ci ku weex jógewut ci ku ñuul annafu wa durru min al wahaabi laysa min al ahdaai wal ahbaabi njariñ ak lor ci yàlla mi aji may ji rek lay bàyyi koo munta bàyyi koo ci kenn munta bàyyi koo ci noon munta bàyyi koo ci soppe kon yàlla moom yi nañu koy delloo palaasam bu baax xam li mu doon ci nun moo amal gannaaw ak ñàkk te amal gi mu defal nu ci ndimbal loo xamante ni benn ndimbal féetu bu ko ndax daf noo amal def na nuy ay doomu aadama te kenn ci nun pexem defu ko doomu aadama boo gi bu nun ñii ne ci kaw gi ni ko imaam waxe di takk ay fas di takk ay mbaam di sàmm ak jur muy ay nag ak i xar ak i bëy bëy yee xar yooyee nag yooyee fas yooyee mbaam yooyee amuñu lu ñu def yàlla ba tax mu def leen ay fas ak i bëy ak mbaam ak xar nun ñii du sunu benn man-man du sunu benn yitte ju tax sunu borom def nu ni ay doomu aadama coobareem rek kon kenn ku nekk ci war ngaa dellu ci yàlla moom mii nga xamante ni ci coobareem ci lay defee lépp lu muy def te tàgguwu ci kenn it nag kenn nit dimbaliwu ko ci nag kenn defut kenn waxut yàlla ne ko def ma nit yàlla rek moo nu ko def kon nanu dellu ci yàlla moom mii nun ñépp ci wéetal ko ci nangu koo jaamu te yàlla tax te lu ñuy jëfit buñ ca gis sunu bopp te it bu ñu gis suñuy jëf ndax danoo amut nit amut nun nekkunu yàlla mooy aji nekk dundunu yàlla mooy aji dund gisunu yàlla mooy aji gis déggunu yàlla mooy aji dégg yënguwunu de yàlla mooy aji yëngu kon yàlla moom yi nañu dellu ci moom fu ñu toll kon nun jullit ñépp nanu yeexaat sunu yitte te yàlla na képp ku laxasaa yu jëm ca ka ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ku bëgg yàlla mu ne ko siinul fitna ñëw ne ko man de ku bëgg laa mu ne ko kee ko seenul nattu kii mu ne ko seenul fitna ak ñàkk kon bëgg yàlla yombut de bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ndax lu ci ne dafay ànd ak i nattu yàlla nag ay nattoom moo xam na mu koy jaarale waaye doo ne ko yow yàlla kat boo may nattu nattoo ma ci lii loolu dafa yomb di élèves yi def examen kenn du xam lañ ca lañ lay natt dara dangay ñëw rek fekk ñu ne lii ak lii ak lii lañ joxe matière bi ak bi ak bi lañ joxe boo xamee lépp nattu amatul yàlla yit bu nuy nattu du nu nii laa leen di dikke dunu ñi sa alal lay doon duna la ci sa jëmm lay doon duna la ci sa doom lay doon mooy seet seet seet rek la muy def mu def ko ak anam gi mu ko mën a jaarale di seet ba xam nag yow jaam nga bu nangu ab dogal wala am nattu ci sa diggante ak sa borom wala déet mooy tax yoonu yàlla kum yomb ci yow da ngaa xamut yàlla munta yomb loolu ñun ñëpp nañu commencé bàyyi xel am na tawféex jot ku ko yàlla def ci yow boo jàppee ni da yomb rek du yomb. ndax yomb ko weesu di dund yàlla di yëg yàlla te yàqalu la dem ci sa école yàqalu la dem ci sa bureau yàqalu la dem ca marché ba loolu tawféex mënta weesu loolu kon sunu cant am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem noo ngi nuyu bokki Touba Refane yépp góor jigéen mag ak ndaw di imaam yi kenn ko ci nekk noo ngi lay nuyu ci gën ngaa rafetale anam te di la wàcce sa wàccukaay di nuyu borom dëkk bi noo ngi koy nuyu di ko siyaare di yëg seenu cofeel bu baax góor jigéen mag ndaw di nuyu bu le maire mii toog fii boole wurum ñëw na ba Touba Manaarul Huda ca Mbarasaan fekk si ma fa te bu ñëwee ca toolee la ma fekk fekk may watt gerte mu ànd ak nun watt ba ba keroog noo bokk wàccandoo ca toole du door a ñëw ci kër gi door ko joxe teraanga kon fii tey suñu jotaay bii boole wuñu te loolee ñuy def kat muy watt gerte ga liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek lañ cay def benn dërëm bu cay jàddi naa ne ca jamonoy liggéeyu Tuubaa ci mën naa ko daal ñoo ngi nuyu dëkk bi yëpp te di leen siyaare tey ñaan yàlla mi nga xamante ni dara tëwu ko dëkk bii yàlla yokk fi jàmm yokk fi tawfeex yokk fi sutura yokk fi kaaraange sëriñ Moussa sëriñ Souleymane ñii li ñu seede ci yéen ñun ñëpp nañ maase sax ci lu baax lu sa soo xamante ni des koy dal di noppalu walla nga dal ko ba mu yàgg nga ne naa toog ca kër gee déedéet suñ giir dund la melo wii nga wax ci maam Thierno ak nun bokki tali bi yëpp noonu xam ne suñu giir dund la amul benn waxtu wu ñu war a yokkate mbaa wu war a taxawe dox tawee rek ba keroog ñu ne teg ci jàpp wàcc amut taat ji rek mooy wàcc bi te sëriñ bi day dafa wax ne képp kuy jihaat ak bakkanam heure buñ takkee ay tànkam takk ay loxoom war koo yor yor ci bàmmeel dana texe texe boo xamante ni texe du wut te ndox moo ko ku ñu xëy nun ñépp nañu gën a fekk ni sunu sunu laxasaay ci ndigalu sunu borom bi maa ngi leen di digal nun ñépp nu maase gën a ànd akub dal aduna boy dox ci lu bax ni ma ko waxe legi ay nat du ci mana ñak way bul gest ki nga xamanteni yalla sunu borom dafa dogal mom mu baxo tok ta du dox mukk waxuma la ak daw yow nga ne ca yoon wa deggmal yalla nga fasiyene ki tok mom ta du dox mukk ta du massa dox mukk xeer wu fab sanni la nga jilat xeer wa taxaw delo ko ko do massa dox lu toll ni nanu dox te weyta baña gest buñu yene kenn lu ñaaw buñ ko wax kenn te buñ ko jëflante kenn ma ne loolu laa diggal ñëpp li nu buggal suñu bopp nañ ko bëggal jullit ñëpp te yàlla tax nañu fonk wayjur yi te yàlla tax nañu yërëm soxna yi te yàlla tax nañu yërëm ndaw ñi te di leen dimbali te yàlla tax noonu xam ni dund gi lu gàtt la te li muy gàtt gàtt ak mën a ku tële ci la nekk manit lu gàtt la te tëlee ngi dikk ci lañ tàmbalee ci lañuy mujj kon dara xaju fi lu may ne ci lu baax dara xaju fi lu may yéene aw yiw dara xaju fi lu may jëf aw yiw te jëmmi suñu borom rekk tax suñu borom bi ñuy déeyaalee moom ci julli boo taree faatixa ba noppi loo ca mën di teg war ngaa xool la ca yàlla di wax nga fas ca yéene nekk boo ca tegee saarihu ilaa maxfiratin bi rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أهلت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين القيظ والحافين عن الناس والله يحب المحسنين من نيب ورا نيو غاو داو فخ لاغ داو جيمتي جيدلوك سونو بروم لان موي سبب جيدلوك سونو بروم نتي سانتان سونو بروم te bañ a doon ñi nga xamante ni fu ñu xëyee li ñuy yittewoo mooy lu leen di dellu ci adduna rek adduna lu dugg sa loxo rek génn na ba mu ca duggee nga la génn loo ci am rek ba ko amee xamal ni booba nga ko ñàkk lépp day jeex takk mag nag bari na loolu mag moo ko xam waaye ndaw du ko mën a xam mukk ndaw mi am kàttan adduna soxla ko bakkan soxla ko bànneex soxla ko xamut moom li am bu ko yàlla dimbaliwut du ko xiir mukk ci boppam waaye bu la yàlla dimbalee nag ba xiir la ci boppam war nga am ak dëgër ak woy fas yéene nekk ca loolu ba mag di dikk bu dee suñu borom nam mën a ci ak mag ndax ndaw dana dem mag dana dem góor dana dem jigéen dana dem te kenn xamut wan waxtu ci ngay dem kenn xamu nit ci nan ngay demee kon li nu war a yitti woon ñëpp mooy fëx jëm ci njëggalu suñu borom pour jëm ci aljana ji nga xamante ni yaatoo na moo gën a yaatu asamaa wi ak suuf yi ñooñu boo ko doon misaal mu ne la ñooy ñaan mu ne ñi nga xamante ni dañuy dundali seen alal ci yoonu yàlla duñ xool jamono neex na duñ xool jamono naqari na duñ xool bari la nañ duñ xool néew la nañ waaye seen yitte yëpp lu ñu am génn ci cërub suñu borom dañuy nëbb it seen mer dañuy jéggalit nit ñi te yàlla tax dañuy rafetalit jëmale ci bindeef yépp te yàlla tax kon nun ñëpp nanu maase gën a góorgóorluwaat gën a takku gën di rafet njort ci sunu mbokki jullit yépp kum man di doon loo dégg ci sa mbokkum jullit bul ko jàpp la nga war a jàpp ci sa mbokkum jullit mooy lam jëflante ak yow ak lam waxante ak yow waaye dégg naa ak neenalu képp koo xamante ni yaa koy topp ci kàmb ngu njuuxaan rek ngi jëm looy jàpp ci nit ki daal wala nga di ko bàyyi na ko jëflante ak yow waaye bu mu doon looy dégg ci ab noonam wala looy dégg ci ab xaritam ndax nit koo gis ñaari nit la ci nit ñi am na nu ko ay xaritam gise ak ña ko sopp waaye ña ko noonu it am na nuñ koy gise am na nuñ koy déggee lislaam li muy baax baax baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd tedd tedd tedd tedd am na ko ñoo xamante ni nitu bànneex dong lañ ko jàppe ku tiri sa tiir téere yu lañ ko jàppe ku teg ay sos dong lañ ko jàppe li muy tedd tedd ci ñun bakkan mooy sunu alal mooy sunu lépp mën nañ ko ci naa ne dégg ngeen ki def téere boobu kuñ daan wax Salman Rushdie 8 89 jamono yooyu lu ko sori ayatu seytaan la wax alquran mu ne ayatu seytaan loolu kenn mësu koo dégg nit a ko wax de te ki ko wax ba te mi ngi dund waaye ay moroomam it ñu ngi fi yonent yi alayhimu salaatu wa salaam la ñu dajee loon ak ña ñu dajee loon jamono bu ne ñu ngi dund jamono bu ne ñu mel na ñoom ñu ngi fi. waaye ñi doon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci njub ak dëgg ak sellal ak ci fóotu xol yi ba ñu set ñu yéegalin ci yàlla duñ fi jóg mukk abadan ndax waxtu wële mbindeef yi dañ koy soxla moo tax duñ fi jóg mukk waaye li doon gàllankoor yi du fi jóg mukk li nu war nag mooy ubbi suñuy xel xam li ñuy jariñ ak li ñuy jëriñut nii ko meer waxe léegi ab sëriñ des koy roy boo demee ci majmuhu rasaayil bi imaamu Xasaali yi dafa am koo xamante ne dafa ànd ak taalibeem ñeent fukki at mu ne ko yow ànd gi nga ànd ak man bëggoon naa xam lan nga ci jariñoo ndax nun question boobu noo koy posé suñu bopp yow am nga kilifa diine ne kii de mooy sama yaakaar ci yàlla diir bi nga ànd ak moom ndax kilifa goo gii mas naa toog ak yow wax la ci sa digganteeg sa boroom dara. ndax kilifa googu mas naa yittiwoo ci sa wàllu diina dara ndax kilifa googu mas naa yittiwoo ci dox gi nga war a dox yow jëm ci sa borom dara nit sooy topp nit bul ko topp ci aada waaye danga koy topp ci yàlla ndax sëriñ bi ba muy wax sëriñ dëgg-dëgg kat dalay yar ci xam-xam ak teggin ak jëfe ko waaye dalay yarit ci teggi aada teg ko fële topp yàlla do top nit ñi do top it seeni aada waaye yàlla la lay toppaloo akub yonentam ci sunna su set wecc loolu war nañ koy bàyyi xel bu baax nit ki soo nee damay wut ab sëriñ mooy ni damay wut ku ma gën a jege sunu borom ba tax man nit ma jege yàlla loolu mooy ab sëriñ kon ku ànd ak nit donte benn jataay ngeen toog war nga ni man lan laa jariñoo ci moom waxuma nag ngeen dund ay fan waxuma nag nga dund ak moom ay weer waxuma laak nag nga dund ak moom ay at te diir boobee yépp boo ca gisut loo dolli koo ci sa digganteeg sa boroom ci jikko ju rafet gën bëgg su borom gën koo jublu àllaaxira gënal la adduna na la wóor ni doxagoo te sëriñ bi dafa wax ne kat wa man taxallaqa bi waa silin wasal ku aju ci ku egg ci yàlla da egg waaye wa man bi xàkk si hin fasal ku jox ci ku yëggut te doxut bay dem doo dem fenn oto lu mu rafet rafet rafet lu mu bees bees bees bu gaare woon fii nga dugg ci oto bi amul benn essence wala amul benn gasoil oto ba yaag moom foofa ngeen di maxe waaye du tax a dem fenn kon na ñuy xam lii ñu doyee kilifa mooy koy roy ci diine lislaam koy roy ci jikko ji rafet koy roy ci doxin rafet Doang ngi sant yàlla sunu borom cant ko amna fu mu tàmbali amu fu yam suno di sant sunu kilifa ko sunu sanga ba maulana Cheikh Salih mbake bu nuyu ak siyaara lu bari Cheikh mohammed muntaka mi toge jotaay cheikh Khadim di nuyu ak siara sunu kilifa bopp Serigne Cheikh mom Serigne Salih mbake noo ngi ñaanal julit ñëpp fu julit man di nek di xey ci lislaam ak gont yalla ci yalla defal ndawal barke ak tawfeex ak sutura fu jullit mën a nekk ci bi yàlla na yàlla teggil seeni njàqare te defal leen ay xéewal yu ànd ak mucc ak sutura nanu gën a boole sunu bopp gën a nekk benn te dëggal ci sunuy wax te dëggal ci sunuy jëf tey dund yàlla sunu borom rek moom rek ci la ak dal ne ci yàlla ak dal ci moom rek la nekk leneen loo mën di nekk di ci kër ci kër ci doo ca am ak dal mukk adduna du joxe ak dal bakkan du joxe ak dal bànneex du joxe ak dal bakkan du joxe ak dal saytaane waxaale ji yàlla rek ci la ak dal yàlla rek ci la bànneex nekk kon nañu fexe ba am yàlla dafa am nit ku ba ma sa wax ni ñëw ca kër ga te daara ja new ma de sëñ bi damaa bëgg nga jox ma loo xam ne daa tax nit ñi bëgg ma te di ma jariñ ma ne ko bëggal yàlla ngir yàlla qul man bi yadihi malakutu kulli shay yàlla moo téye lépp ci loxoom wutil yàlla ki téye lépp ci loxoom kay bul soxla woo yëf yooyu yi yittewal yàlla sa borom boo ko amee rek lépp wut si la te dutoo ñàkk dara waaye nag fexeel ba bul gestu yooyee bu ndox sa diggante ndax boo ko gestoon ñàkk yàlla yàlla moom moom rek nit ki it lu jëfam rëy rëy ak moom sori sori sori sori sori ci lu baax ak lu baax lu mu man di def lu mu rëy rëy rëy rëy rëy la in ashrakta la yaxbatanna xamaluk wala takoonana minal xaasiriin feeg yaa ngi dund te génn goo àdduna lu sa jëf rëy rëy rëy ak loo man di farlu ci ak jaamu yàlla ak doxin woo ci man di dox heure boo xëyee wan gannaaw yàlla moom mii na la wóor ne yàpp musta jaar ci woon kenn waaye nit kii it lu jëfam safaanu safaanu safaanu sa lu mu sàggan sàggan sàggan ba mel ni man heure bu sukkee fu kanamu suñu borom tuubal fu tuub bu sell te ab yéene lam na def bañ a tëtaat dellu mukk donte sax doonutoon ab jullit tey la dugg ci lislaam te dëggal ko te sellal ko la weesu lépp ko dana mel ni kuy dooru dugg ci ma juróomu jigéen kon ñun ñëpp noonu maase gën a góor góor góorgóorlu gën a takku gën a farlu bu baax di yéenante jàmm di yéenante yiw diko ko waxlante te di ko jëflante te wattandiku kañaan kañaan moom mooy tabbi sawara na ci kaw suuf ndax moy yalla li mu def dara neexuma ci te te bala ma bayyi mu deñ jëflante toog nit ki de yalla suñu borom ngay jëflanteel innal fadla bi yadillah yu'tihi ma yasha ci ciobare suñu borom dong mu lay joxe ngëneel te ku ko soobi mom la koy jox kum ko jox nak nga ni li du am na la woor ni yaa ci kàmbuk sawar buy tak te du fañ te dara du la ci mën a jële kenn du la ci mën a ndax yow li yàlla def moo la naqari képp koo xam ne la yàlla def nag daf laa naqari yàlla ngay songoon kenn du songu yàlla na ko am ca ndam mooy tax lépp lu yàlla defal ab jullit naa neex ba mel ni yow yaa ko am diw fal imaam lu tax diw fal maire lu tax diw chef du bi lu tax diw am na lii lu tax diw mel na nii lu tax diw mi nit ñi bëgg nañ ko lu tax danaa fexe ba loolee dem mukk mu ci nga ku ne leen ci sa loxo yàlla moo ko yëkkati def ko ci te tagguwut kenn yàlla mooy dindi yàlla mooy def kon nañuy yéenante jàmm te wattandiku kañaanante muy lu yaatu ci jamono bi dangay gis ko xéewal gëpp jàmm jaamu bi yàlla am waxtu wu ne ba sañoon xéewal ga deñ donte sax xéewal ga dikkut ci moom loolu dañ koy wattandiku bu baax ndax ku yore woowu melokat ci fitna ngay dëkk dootul ca ca dootul du mukk ndax waxtu wu xëy da ngay gis ko xéwalam di yokk tawfeexam di yokk ngëneelam di yokk ngay tiit di jàq di firfiri te doo ca man dara ànd ca nag dangay dal di féex dangay ngay daal di dal mooy tax ñu bëgg nit ki di def jihaadu nafsi ba lu yàlla def mu neex ko ci boppam ba lu yàlla def ci bindee fi yeneen mu neex ko nañuy wattandiku rëy kenn amut bay rëy yàlla rekk mooy aji am bul rëy ndax ni damaa xam bul rëy ndax ni damaa am bul rëy ndax ni damaa rafetu juddu déedéet yàlla rek ay aji xam yàlla rek mooy aji am lu mu doon ndénkaanal suñu borom la te lu ñu dénk te di ko jël fe te ki koy ki la ko dénk war koo jëlaat dana la laaj li la dénk lu ci ne na nga ca def war ngaa bàyyi xel ndénkaan la bu baax sunu jëmm yi ndénkaan la sunu alal ndénkaan la sunu njaboot ndénkaan la nañu la ci siraatal mustaqim te teg ci njaboot gi moo xam soxna yi la moo xam doom yi la ndax kenn ku ci nekk ëllëg suñu borom dana ko laaj oo leen seen bopp saara wattandiku leen seenu njaboot nit soo juree doom tudd ko turu baax waaye jàngal ko diineem yar ko xamante ni ëllëg suñu borom la koy laaj léegi ñu ci bari seen njaboot bu ñu leen dugalee ca daara ja ñu tàmbalee jàng waxuma la sax ñu bari sax duñ dugal seen doom daara fu ñu xëyee rek école ba kooku moom mooy dawal wuti adduna ñooy dugal ca daara ja bu dëgëree tuuti ñu rucc ko ngir lan teel bëgg njariñ lu mu leen di jox déedéet njariñ ci yàlla la ne nit jàng na ba am ay diplôme ñu jëmbal ko ko tey man gis naa koo xam ni jàng na ba am ay diplôme ñu def ko directeur société tegal ko ca ndombal tànk maire keroog bañ ko ko takkalee muy dem ci wataam ci la daan am na koo xamante ni teesu doctoraam ba mu koy def néeg ba mu tëdd ba ba mu nekk di waaj ñu ñi ko xaar ci biti ngir mu war a génn foofu la ko suñ borom moom am na koo xamante ni keroog ba leen Abdou Diouf joxe seeni diplôme bu dugg ci fonction publique ñu affecté ko fa muy jëm yëpp te moo ne nii ñëpp boo xoolee seen dund gépp ci jàng nuñ jekkoo adduna lañ ko doon def bañ demee ba war koo jekk ca leen yàlla jël kon nañuy jiital sunu borom ci mépp mbir moo man ak ci lépp lu ñuy def noo ngi ñaan yàlla mi mën a dimbali yàlla dimbali yàlla mi mën a sàmm yàlla sàmm yàlla mi mën a aar yàlla aar nu yàlla mi mën a taxaw yàlla taxawunu képp ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo képp ku fi teew yàlla na yàlla jéggal njéggal gu sax dakk dakk dakk dakk te bañati laa topp dara li ci sa dund góor jigéen mag ak ndaw kenn ku ci nekk lay sa bëgg-bëgg ci sa xol yaa ko xam yàlla mi mën a sottal ab bëgg-bëgg nag yàlla na ko yàlla sottal tam seddu guy te ànd ak jàmm ak tawfeex ak sutura ku ne la ngay yóotu yàlla nga ca jot man yàlla na seenu fan yok man yàlla ndaw ñi yàlla suñu war def ay mag te def ñu mag yi lislaam def ñu ay mourid sadiq def ñu liggéey la ko nu borom Tuubaa ci tóoru l'islam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jëf ayasamin ila wandaje wale iblis ir ladaytuhu diya wale ayasamin فارسي وعني خلبسا دعاني الرب والحسود يقول لي حيث أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساق لغير الله فيما ينبى ما زاق قلبي وأهل جنبه قبل لدى البهور كفى الحياة حيال المدهوري علمني العليم عند ساخرات مما يشاء والكفى الكافرات الجميل عند المهلكات ما زاني عن جانب للمشركات هبات من لي كان الشقاوة ومن كل عتاب أكرمني عند سوي الإشراك من قادني إليه بالإدراك ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جبريل